wa inni u'iizuha bika wa zurriyataha min ash-shaytaani rajiim wa bi a'uuzu bika min hamazaati shayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yahduruun alhamdulillahi rabbil aalamiin yaa hayyu yaa qayyuum yaa zal jalaali wal ikraam assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh ñu ngi nuyu mbokk jullit yi mbokki lislaam ji yëpp di leen nuyu leen jox seen wàccuwaay bi ngeen am te ñaan suñu borom subhaanahu wa taala defal ñu feex ak mujj gu rafet mu mel ni dañuy del rek comme niñ ko baaxoo defee suñu jotaayu gu yóbbulum ndaw ñi muy jotaayu fàttali ak jàngale ci li nga xam te ni moom lañ suñu borom dénk muy suñu diine ñu nekkoon ci téere bi ñuy wax nag tasawudu sixaar jàngale woon nañu suñu bunt yi mujj muy bunt bi nga xam ne moo jàngale lan mooy faratay sangu ak ay sunnaam kon ñu ngi ñëw ci suñu bindu tey di jàngale lan mooy farataay tiim bismillah mu ne faslun lii ab bunt la fii faraidi tayammumi ci faratay tiim kon lii dugg mooy bëgg a jàngale lan mooy farata ci tiim ak nan lañuy tiime ak tiim ci boppam farataam ñaata la mu ne amal faraidu tayammumi ndaal farataay tiim mi juróom-ñett la awaluha aji njëkk seen an niyatu mooy yéene fii maa ca la nga xam ne sureha leeral leef na ko kon faratay tiim ci ab lim juróom la ba ci njëkk an mooy yéene summa saxiidun topp pàkk taahirun bay aji laab wa fawrun ak gaaw wa darbatun ak dóor te xaddamat bay aji jiitu zaa lii xayrun moo gën wala zaa lii xayrun aw yiw la mu ne wal mason ak masa li wajihi ñeel xar ga wal mason kuuxi ak masa loxeya ba ci ba ci concee kasaaka ni noonu ittisaalu ak jokkaleem mel masuuxi ci liñu ñu yoonal wa fexaluhu ak ak jëfam baax da duxulil waxti ginnaaw tabbi waxtu wa laa yasexu du wér xablahu ak njëkkam ak njëkkam fa xaddi na nga lim matal mu nekkoon farataay tiim juróom-ñett la kon nag dañuy njëkk a wax nan lañuy tiimee ba kon tiim niñ koy defee mooy dangay jël sa ñaari loxo teg ko ci pàkk bi ngay tiimee bu dee suuf moo gën wala doj yooyu ñuy tiime mooy doju dën yi booy tegee sa ñaari loxo li ngay njëkk def mooy yéene masaa sa xar kanam ba mu daj nga delluwaat beneen yoon tegaat sa ñaari loxo ci li ngay tiimee jëw ci sa loxo ndeyjoor la tàmbalee ci cati baaraam yi ba ci conc li ci biir ak biti nga def ko sa loxo càmmoñ la tàmbalee ci cati yi biir ak biti tiim bi dalaal di mat kon kon noonu la ñuy kon nag tiim dafay mel ni moom lu gàtt la waaye nag farataam mel na ni farata yu bari la kon faataay tiib ba njëkk mooy yéene ñu nit ki bu amee li muy tiimee bu demee ba teg ko ba war cee tiim buy teg ñaari loxoom mu fas yéenee tiimal li muy jëm jaamu yàlla gi muy def mu tiimal ko bu dee julli bu dee jàng alxuraan bu dee naafile mu tiimal ko yéene ko ci kon bëcc njëkk mooy yéene ñaareel mooy pàkk bu làpp mooy fi ngay tiime na nekk pàkk bu làpp boo xam ne amul benn sobe na nekk tamit li nga xam ne moom lañ la sant nga tiimee ko wa foofu ak gaaw mu ne mooy toftale ga ak dóor bu njëkk ba dóor nag bu ko waxee mooy teg bi ngay teg sa loxo rek teg bu njëkk boobu mooy farata ak masa sa xar kanam muy juróom ak masa say ñaari loxo ba ci conc yi muy juróom benn ak jokkale ko defee ko ci loo xam ne moom lañ la sant muy muy juróom-ñaar ak jëf giñ koy jëf mu nekk muy benn kon jëf giñ koy jëf mu nekk lu taqaloo ak waxtu wiñ koy jëf maam danga koy xësalee ak waxtu yi dangay tiim rek jóg kàbbar julli kon nag boo ko tiimalee ci loo xamee ne danga tiim bam neex la nga toog ab diir door a julli kon boobaa du baax kon tiim da ngay bàyyi ba waxtu wi des lu mel ni ay seconde wala lu mel ni minute nga bàyyi ba mu jot boo jotee nga xam ne da ngay tiim rek jóg julli kon boobu lay wér kon boo tiimee di xaar comme lu mel ni jàpp kon day yàqu kon loolu mooy juróom ñett yi nga xam te ni mooy farataay tiim yéene pàkk bu laab toftale teg bi ngay teg seen loxo bu njëkk ba massa sa xar kanam massa sa ñaari loxo ak jëf ko ci dug ci taab ci ci ci ci waxtu waxtu boobu jotee ak jëf ak tiim ci liñ la liñ liñ yoonal maam tiim ci li nga xam te ni moom lañ bëgg ko ci tiimee nga xam ne waroo tiim tamit te waxtu boo jotut kon yooyu mooy juróom ñett yi nga xam te nii mooy farat ay tiim mu ne kon day jàll ci sunna yi mu ne fas lii ab bunt la fii nii ci ay sunnaam sunnanuhu ay sunnaam salaasatu ñett la ak tartiib mooy toftale ga tajdiid du ga ak sag yeesal ak darbata dóor dóor ba yàlla bi yow aji xelu ja waxiyata moom li yadda ni ñenn ñaari loxo yi summa mashuma topp masaa la nga xam te sala zaala dolleeku na xalal koo xay ni ci tikki jara ja dax bàyyil te yem ma tiim mustaqniyan nga aji doylu anhu walif ko bi tuxril i ci laabug ndox in kunta neem nekk nga za sixatin di boroomuk wér laa raddaa i déet ngay boroomuk feebar ku am jàngoro aw kunta wala nga nekk za maa in di boroomuk ndox bi xostin ci ngànt fa turaabu kon suuf xiina isin jooy jole jamono xalafuhu dana ko wuutu faxi watul asawaab asawaab njub ga kon sunnaay tiim ñett la moom ba ca njëkk mooy yeesal di ngay yeesal teg sa loxo ci li ngay ndax booy tiim dangay ngay njëkk jël sa ñaari loxo teg ko ci li ngay tiimee sa xar kanam jëlaat sa ñaari loxo tegaat ci li ngay tiimee door a masaa sa ñaari loxo kon ñaari teg ngay teg ci li ngay tiim teg bu njëkk ba nag mooy farata tegum ñaareel bi mooy sunna kon tegum ñaareel bi sunna la kon mënoon ngaa jël sa teg bu njëkk rek massage sa xar kanam massage say loxo mu jeex kon tegum ñaareel bi sunna la ak masaa gi ngay masaa li dolleeku ci say loxo kon liy farata ci massa loxo yi mooy la tàmbalee cati baa yi ba ci tikki jare wala nga ne fi ñuy takk montul mën nga koo jàpp yit ne booy jàpp li ngay raxas fi mu toll loolu rek mooy farata ci tiim kon dolli gi ngay dolli ba ci oom ya ba ca conco ya ba conco nga ñëwaat kon loolu sunna la kon dolli googu nga ciy dolli ba ci conco yi sunna la mu ne nag na nga bàyyi tiim tey dooloo jàpp bu dee nag nekk nga ku wér te am ndox nga xam ne dara dalul la am nga am ndox kon na ngay jàpp te bàyyi tiim nee na waxul nag ki nga xam te nii dafa am lor maanaam dafa am feebar boo xam te nii mënta jàpp wala mu am feebar boo xam te ni bu jàppoo bi day yokk wala sax amul feebar waaye bu jàppoo mën naa jur ci moom feebar kon kooku waxut kooku kooku nga leen tiim wala nga am ndox sax waaye danga am ngant xam ne ndox mi tey ndox mu néew la te mar ngaa naan nga xam ne boo ko jàppoo doo am loo naan kon bu boobaa mën ngaa tiim te naan ndox mi kon boobee jamono nag kon ci la waxee ne kon suuf mooy wuutu ndox mi wala sax am nga am ndox waaye waxtu wi jeex na nga xam ne waxtu yi tey dangaa war tiim dem juli waaye nga ne sax man duma tiim ndax dama daan jàpp naa dem jàpp nekk foofu ba waxtu julli yu weesu te amoo ci benn bàkkaar kon boobaa waxuma la jàpp waaye danga ci am sax bàkkaar kon li war mooy liñ la sant rek na nga ko def bu amul ndox na nga xam ne amoo ndox bu waxtu yu jotee mu leer ne am mënoo am ndox nga dem tiim jàpp nga dem tiim dem julli kon loolu mooy yoon kon sunnaay tiim mi ngi noonu kon ñett rek la mooy toftale mooy loo boo raxasee sa boo masaawee sa kanam nga teg ci masaa sa ñaari loxo ndax dañuy bañ nga masa sa xar kanam toogaat neex la wala nga bañ a masa sa njëkke eh, sa loxo masa sa masa sa kanam teg ci masa say loxo kon loolu toftale googu nga koy toftale kon sunna la muy mu njëkk ak yeesal gi ngay yeesal teg ngay teg sa ñaari loxo ci li ngay tiimee muy ñaar ñetteel ba mooy masa la dolleeku ca loxo ya la tàmbalee ci tikki jaree ba ca conc ya muy ñett kon yooyu ñett yooyu mooy sun nay tiim kon lii mooy farataay tiim juróom ñett la nay tiim ñett la comme niñ ko limee kon lii moo nekkoon suñu bindub tey kon ñi ngi wàcce kàddu yi di siyaare ñëpp tey baalu ñëpp xàq tey ñaan suñu borom mu defal ñu dégg ak topp ñaan suñu borom mu defal ñu barkeb xam-xam ak barkeb kuy sàkku xam-xam te nangul ñu lépp te jégal ñu suñuy bàkkaar may ñu gudd fan ak wér ñi ngi siyaare ñi teewlu jotaay bi yëpp wax dëgg ñu ngi dégg soon ñu yeeg yëpp ñu sant bu baax daal ñaan suñu borom boole ñi yiwu ci barkeb Sëriñ Tuubaa in uridu ilal islam masataxtu ma tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullah Amen. doyoon sëkk tey kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey